Boubacar Seye ñu ngi lay nuyu. Fatou ñu yow yaa njiital Horizon sans frontières di ONG buy euh, saytu ak ak ak nekkinu doomi Sénégal yi nekk ci bitim réew ci lu ci gën a bëri alors euh, lii euh, lay taal waxtaan wi mooy mbirum Mbayang Diop suñu mbokk moomu nekk fële ca Arabie Saoudite ñu teg ko fa loxo ginnaaw kàddu yi nga ci yëkkati woon ambassade bu Arabie Saoudite yëkkati na itam. Eh, yeneen kàddu wax ne Mbayang eh, mi ngi ci jàmm dara dalu ko loolu wuute ak eh, yow li nga waxoon ni ki itam njabootu Mbayang Diop ci kàddu frère ndax li ambassade royaume Arabie Saoudite wax dal na seen xel léegi. waaw xam nga ambassade Arabie Saoudite dafa daf communiqué bataaxal parce que soo xoolee la première fois ambassade. Arabie Saoudite yëkkati baat yëkkati baatam ci campagne kon d'abord euh, boobu pas dañ koy rafetlu parce que au moins communiqué na ci moo tax nous avons pris acte maintenant si nous sommes rassurés à cent pour cent man je dirais non au niveau de Horizon sans frontières parce que damay faral di wax ni preuve de vie généralement kenn du ko defee Euh, mbokam yi wax nañ ko woo ci campagne parce que pa campagne dafa am yeneen mbay mi en Arabie Saoudite kon loolu wax dëgg yàlla ñun loolu lañ doon xaar et j'espère que xëy na la prochaine fois ça sera comme ça pour xel ñëpp mën a dal à cent pour cent hmm. euh, communiqué bi euh, comme ni ñu ko waxee rafetlu nañ ko mais ba léegi xel tey na parce que wax nañu pourquoi communiquer léegi mu def ko pourquoi ñoom léegi lañ ci doog a communiquer donc loolu aussi c'est des questions que nous on se pose mais xam nga cas du du ñu mu am polémique parce que dafa nekk un cas très sensible ba xam ni bakkanu doomu aadama moom moo nekk en jeu donc ñun li ñu def la lu dul euh, rafetlu en attendant que ñu am yeneen preuve parce que loolu aussi moo normal en attendant ñu permettre une organisation wala kenn mu dem seeti pourtant si communiqué bi ambassade Arabie Saoudite ñu ngi wax ne autorité sénégalaise yi nekk foofu sax euh, ci njiitalal Cheikh Tidiane Sy ñu ngi dem souvent di seeti mbayang ndax yow gëm nga loolu. waaw loolu loolu ba léegi mën na nekk mais comme ni ma ko waxee rek c'est pas ci communiqué ñetti page. Mm-hmm. xam nga la ñuy la ñuy euh, déjà gisoo mooy wane na may ak dal dalu ko. waaw loolu daal suñ ko amoon daal suñ xel wax dëgg yàlla day gën a dal. d'accord mais comme lii la ñu amagum on se contente di ñaanaat leneen. Mm. ñaanaat bi mooy nañ fexe ba ay nit dem fa. voilà gis ko euh, xel yi gën a dal. tey Horizon Sans Frontières doon euh, bëgg dem seeti Mbayang xëy na. non pas forcément Horizon sans frontières xam nga yaa am na ay organisation yeneen yoo xam ni war nañ ko mën a dem mais li ëpp solo sax je crois que du Horizon sans frontières parce que Horizon sans frontières moom dafa lu dul rek la semaine parce que mbayang xam nga euh, xam nga condamnation à mort kenn du ko def kenn du du mënoo ci boole wér dëgg la parce que déjà dañ lay rey rek déjà rek loolu rek déjà stress boobu rek rawatina nag ci jigéen mm-hmm. kon xel dalul kon man waxuma horizon sans frontière mais je crois que doomam jooju mënoon nañ fexe ba mu ànd ko ay mbokkam mm-hmm. voilà mu dem mu dem seeti ko loolu moo tax daal euh, xel yi tey na trop d'accord dossier bi mm-hmm, ni ko autorité sénégalaise yi géré yow noo ko gisee waaw xam nga dossier bi ni ko autorité Mm. mais malheureusement le vin est déjà tiré euh, tey ñun li leen wax rek booy nañu jël leur responsabilité bañ a bañ a wut parce que même le communiqué du la MASAC <laughs> soo xoolee am na ñu seen xel tey dañ ne dañ ne li tax ñoom ñu communiqué tey mm. li tax communiqué bi déggoo ci famille Mbaye ñoom ñoo taxaw ci télévision yi wax mm-hmm. pourquoi ñuy indexé ni horizon sans frontière c'est parce que am nañu wax ni c'est une tentative de museler ñëpp di nga xam ne ñu wax ci kaa mbayeen hmm. xam nga loolu baaxul mbay jigéen la dañ ko yërëm horizon sans frontière waxul lu dul nañu activer euh, la diplomatie sénégalaise pour mu am un sursaut diplomatique pour ñu jàppale ko mu mën a ñibbi si Sénégal hmm. parce que parce que li ko daal dafa metti nattu la hmm. loolu rek la ñu wax mais j'ai l'impression que daal euh, ñoom dañu bëgg ngeen nopp ci Arabie Saoudite su demee ba daf communiqué ne ñoom Sénégal li ñu bokk bëri na. Mhm. kon kay kon kon kay Mbaye Ndiop waratu faa mën a fanaan. Mhm. mais ñun dañuy ragal li daal Alkali daal Mbaye Ndiop parce que parce que Mbaye Ndiop Alkali dañ ko fa tëj. Mhm. dañ ko fa tëj ba mu kii ba mu ba mu gaaw ñu jël depuis bi tëj ko. ah loolu tamit dañuy bañ mu dal Mbaye Ndiop loolu moo tax ñu ñuy alerter rek te mission boobu nag ñun. te mënuñu ko teggil parce que loolu mooy suñu warugal. Mbayang tey yaakaar nga ak ni yëf yi demee ak fi ñu toll nii tey ne mën na cee génn ba tey. waaw waaw mën na ci génn ba léegi mais nag ci kaw ñu jóg ñu jóg ñu pis yi ñu jox de solution ñoom ñu jóg. Hmm. parce que tey jii xam nga soo xoolee euh, relation yi Sénégal am ak Arabie Saoudite xam nga c'est des relations séculaires multidimensionnelles hein. Hmm. Sénégal boo xoolee dafay topp sax Arabie Saoudite dans un suivisme diplomatique. Hmm. Sénégal lu Arabie Saoudite toroxal foofu ba ñu dañ koy rek mais nag Sénégal moo war a jóg jël ay matuwaay parce que loolu c'est le rôle de l'État du Sénégal moo ko war a taxaw mbay jóg ñu ñaan dimbal parce que verdict bi le verdict est déjà tombé. Hmm. kon tey ñun mën nañoo ñaan quand même pour que cette peine de mort soit commuée à une peine de prison simple mën nañu sax ñaan mbay ñëw tëddee ko fii Sénégal hmm. et mieux encore. Euh, mën nañu ñaan le roi pour que tey mu am une grâce à titre humanitaire. loolu yëpp mën naa nekk. mais ba ñu mën a nekk nañu nañu diligenter une délégation de chefs religieux multi acteurs pluri acteurs. ñu dem ñaan ñu dem ñaan famille bi ñaan roi bi. mais ambassadeur bi ñoom li ñu bokk ak Sénégal kay yoon kenn nekku ci. Hmm. kon kay ñoom war nañu mën a baal doomu Sénégal bu ñu war a rey rawatina ak loolu rek lañ wax mais est-ce Sénégal mu ngi ciy dox dox jéego yooyu yu ci war man gëmuma ko. loolu laa parce que soo waxee ñu ne. ka Mbaye gisoo pour ñu wax ci il a fallu que ñun toujours ñu soulever problème bi. Mm-hmm. parce que Mbaye et aux oubliettes dañ koy fàtte. dañ koy fàtte damay toog ba si àgg nit woo ma ni ma si ah, sëy Mbaye loolu ci xam gën nañ ci wax de mais amul communication. Mm-hmm. l'absence de communication dans le dossier Mbaye a créé un flou. Mm-hmm. yéen ci wax. dañ koy fàtte mais bëggul nag ñu fàtte ko ba ñu xëy rek ñu ne mbay mi wala mbay mi la bu boobaa nag l' état sera responsable hmm. état ni muy doxalee nii ay bourse émissaire lay wut ci kaa mbay ñoom ils sont responsables ñoom ñoo war a taxaw mbay horizon sans frontière dafa lu dul loolu doomu aadama dañ koy taxaw su nekkee ci difficulté rawatina sa su sa doom hmm. je vais te donner le cas de Serge Atlan dañ ko jàppoon bu ko rey c'est un français gis nga l' wax nañu sax il fallait euh, un moratoire sur les peines de mort en Indonésie gis nga seen famille saa bu ñu xëyee di bëgg dañuy rey nit moom dañ koy seet mm-hmm. bàyyi ko ba léegi kenn rey ko parce que état bi dafa jóg taxaw mm-hmm. kon ñun li ñu bokk ak Arabie Saoudite wax dëgg yàlla war ñu woon egg fii ci Kanta ak Diop ça fait quatre ans mu tëdd mm-hmm. depuis deux mille loolu ñu war a xoolaat la nañu bàyyi caaxaan bi xam ni Sénégal ñoo ko bokk ñu jàppalante dimbali nit ñi yërëm nit ñi loolu moo amul d' accord actualité aussi dinañu indi ñu wax ci coronavirus doomi Sénégal ya nekk ci Chine euh, bëgg ñu indi leen euh, nguuru Sénégal ne jumtukaay yi ak euh, mën-mën gi daal neew fii kon fa la ñuy toog rek ba xëy na yàlla def li ko neex yow ndax jàpp nga ne noonu ñu doxalee am na lu koy layal. man damay wax ni c' vraiment maladroit que doomam nekk ci ay difficulté di ñaan dimbal nga taxaw ni loolu mënul nekk parce que nous n'avons pas les moyens logistiques loolu àddina bi yëpp ñoo ko jàll day tax gisoo chef d'état Sénégal mooy le seul chef d'état moo moo ko wax ci àddina bi moo tax soo xoolee fan yi passé le Sénégal était à la une hein des des des des des journaux ci àddina bi parce que dañu ne amul fenn donc c'est un aveu sax un grand échec de taille XXL parce que xam nga état. Euh, dafa fort état euh, c'est un ensemble de services ah état dafa war a rassurer état warul sukk état warul wax mënu ma parce que ku jaaxle ci état kay def gisoo li ñu wax ñu ne l' état devrait lii la waroon def kon état su taxee ni mënatuma tëj bunt yi loolu doy na tey lan la ñu mën a def ci sa xalaat ci situation bu ni mel. waaw mais xam nga tey. Euh, soo xoolee évolution virus ci àddina bi euh, les meilleures prévisions sur la santé mondiale tey sont de plus en plus avancées parce que euh, il y a plus de morts pratiquement virus bi ñu virus bi éclaté wu sur toute l'étendue du territoire bu boobaa Chine dafay fermer ay frontières am hmm. su Chine fermer ay frontières am ñoom ils seront bloqués là parce que dootul génn Chine dootul mën a dafati benn échange avec le monde extérieur te dama jàpp ni course contre la montre lañ nekk parce que soo xoolee tey ñoom wax nañ ni affaire bi di na leen ba nga xam ni donc il faut déclencher l'urgence l'urgence euh, l'urgence état d'urgence ci dëkk bi kon tey je crois que waxatuñ la Ensuite, il y a eu plus de 400 immigrés. 400 000 immigrés, dont plusieurs africains, sénégalais du kon tey lii su amee je crois que Sénégal war na jël matuwaay. mais nag ci kaw mu sàkk ko aussi atu mhm. parce que euh, soo xoolee. Euh, les étudiants laa dañ ko sàkk woon. Euh, seen parent tamit sàkk ko Sénégal yëpp di leen déglu ñun boobaa ñu jóg parce que biñ ko sàkkoo la ñuy def ñun communiqué bi état kat na gaaw mais bëgg dem dañu toog ci benn waxtaan koo xam dafa nekk ci ci. miin ko tegg li ñu teg fële donc il y a un problème quelque part ñu jàngat ni aussi non-assistance lay nekk lu leen mënti dal non-assistance à personne en danger la et le moment venu les responsables seront suivis. d'accord ngir am na loo xam ni. voilà am na loo xam ni tamit euh, Sénégal yi kenn ko fi nangu boo xoolee euh, tay yeneen dëkk yi yàqare amee dañoo dem jëli seen doom soo Arabie Saoudite te na tey ñetti avion France rapatrié na plus de trois cent Maroc noonu bëgg ci biir dëkk yi Sénégal rek moo taxaw ni du rapatrié léegi nag nañu leeral parce que ñun depuis trois jours dañu xaw a jaaxle parce que bëgguñu aussi ñoo ni ñuy ak seen mbokk. taxaw ni ñun de lii li ñuy li ñuy wax loolu ñun wax loolu ko parce que horizon sans frontière daf ci feeñ. Mm-hmm. bëgguñu wax loo xam parce que un rapatriement moom day fekk borom sàkk ko. Mm-hmm. moo tax la ñu wax ñu xam parce que ëllëg dañuy bañ ñu def leen ne ay communauté yi ñuy leen wax duñ sax duñ leen dara parce que am na daal lu nekk d'accord ngir jeexal immigration clandestine moom dafa mel ni jeexagul naam ñi ci ñàkk seen bakkan saa su ne gën di bari ban solution le Horizon Sans Frontières di proposer euh, ci euh, situation boobu tamit. waaw Horizon Sans Frontières. immigration euh, clandestine moom mënagul a jeex parce que jéego yi ñu ci war a teg pour wàññi ko. bon ko à des proportions tolérantes yooyu lañ tegagum boo xoolee les problèmes liés à la mauvaise gouvernance dafay obstruer dafay dafay couche vulnérable yi nga xam ne mooy jeunesse euh, xale euh, jigéen ñi la jeunesse bi nga xam ne tey amuñu benn yaakaar ni ñoom waratu nañ mën a dund dignement seen seen dëkk dañu dem ba nga xam ni le flou hein le le le le doute du moins dafa perforer euh, l'environnement socio-psychologique de cette couche là ba nga xam ni ñoom foog nañ ni loolu boo ko tënkee a eu plus de vingt mille morts en Méditerranée tey nag pour saafara moomu bëkk bi teg ay jéego il faut la cause principale et la cause principale nekkul lu la pauvreté dëkk bu mel ni Sénégal mooy la pauvreté le chômage endémique chronique des jeunes les inégalités sociales ak yeneen ak yeneen loolu rek la ñu mën a attaquer xeex pour que di si ñu mën a bokk parce que nit ñi pour ñu toog il lekk il faut naan loolu nag suñu demee ba posé problème loolu moo tax ñëpp foog euh, pour pour nga euh, euh, dañuy war nañoo dem màppi forcé jël ci ay gaal dugg nit ñi dund di nekk boo xam ni am-am dañ ko teg ci kaw bi nga nekk sax soo amul kenn du la faale ñaata sëy ñoo tas parce que am-am moo ko yoroon. ba tax na ci dëkk yooyu nag dëkk ba ni Sénégal il faut que ñu xoolaat lépp il faut que mu am alors tey une révolution culturelle socio mm-hmm. euh, socio-culturelle et épistémologique il faut que ñu xoolaat la notion de tekki parce que yàlla mooy may il faut que ñu delloo suñu bopp suñu yàlla il faut que ñu revoir le système éducatif ba yeneen ak yeneen ba nga xam ne tey dina am un déclic dans l'esprit des gens pour que am une relecture effective yooyu yëpp tey c'est un travail à faire en amont et en moo tax dossier dafa laaj un traitement d'urgence de nouvelles de sensibilisation ak ay orientation stratégique pour lutter contre l'extrême pauvreté li nga xam ne tey mooy facteur de propension loolu moo de Horizon Sans Frontières est un programme qu'on appelle alliance internationale ñun ñëpp jokkoo àddina pour xeex loolu pour xeex bi mooy barça et barça ci àddina jërëjëf Boubacar Seye ñu ngi lay gërëm rappel yow yaay jiital Horizon sans frontières. jërëjëf jërëjëf Fatou maa ngi lay gërëm yow aussi.